kii di sëriñ gaali saar ñu gën koo xam ci sëriñ mbay saar te seexul xaddim daa ko wooye Ababacar Saar mi ngi gëne àdduna ci atum 1815 ci dëkk bu tudd njàppal saar nag mu ngi ci njàmbur moom sëriñ gaali saar doom la ci soxna maam jale njong maam jale njong mi ñu ngi ko denc ci ngumba waajuróom wu góor moom sëriñ mbay saar mooy sëriñ musaa saar sëriñ gaali saar la ko waajuróom tudde waaye seexul xaddim moo ko tuddee Ababacar Sarr nit ñi moom daa ko wooyee Mbay saar wala Sëriñ Mbay saar ñi mu bokkal maam Jobbe Njong mooy soxna Ngotta Sarr ak soxna Anta Jama saar kon ñaar la bokkal waajur wu jigéen te ay jigéen lañ ak moom muy ñett bi mu dal alxuraanul karim itam dal na alxuraanul karim ci dëkk bi mu cosaanoo waaye itam ku géeju la woon ci alxuraanul karim ba tax na bi muy ñëw ci seexul xaddiim fukki daara ak ñaari xam-xam ba na ko yoo xam ne nii moo taxawaloon ñu fa doon jàngale lii di xam-xam kon moom ñu tudde woon kaang ak fóori sëriñ mbay saar mii moom la woon sëriñ mbay saar nekkoon na ku géeju lool ci wàllu alxuraanul karim ba tax na daana ko bàkkoo daa wax salma sita lu waay bëgg a xam ñëwal laaj ma loolu la daa bàkkoo ngir mokkal gu mu mokkaloon alxuraan ak naw gu mu nawoon lii di xam-xamam bi sëriñ tuuba seexul xaddim taxawalee lii di yoonu murit ci atum 1883 ba kàngam yu bari nag ñëw lu ci sëriñ tuubaa seexul xaddiim borom barke bu ne ak borom xam-xam bu ne ñëw ci la sëriñ mbay saar nag déggee kii di sëriñ tuubaa seexul xaddiim ngir seetsi gum ko doon seet si ngir naw gum nawoon xam-xamam ngir bëgg a gis seexul xaddiim loola moo ko indi woon tuubaa wala dëkk bii di daaru salaam bim gisanteeg sëriñ tuubaa seexul xaddiim moom sëriñ mbay saar dane ko salma sita loo bëgg a laaj wala nga bëgg koo xam laaj ma ko man gaali saar loo bëgg a xam yow seexul xaddiim laaj ma ko man gaali saar ci la sëriñ tubaa seexul xaddim binde faatiya jox ko waaye sëriñ mbay saar munta wax faatiya ba mu nekk fay gëweelu ba nelaw foofa ca jataay ba bi seexul xaddim ju lijjee tisbaar ba ñëw la pëkk-pëkkal kii di gaali saar mu yeewu mu xamal ne ko ne jógal julli ndax tisbaar jot na sëriñ mbay saar ne ko julli de nelaw dong la raw te yow yaay yàlla ñoom ñaar nag ca bisub keroog am na luñ waxante lu kenn dul xam ba nëgëni loolu itam moo nekk jaayanteeg sëriñ mbay saar ak kii di seexul xaddiim ci la ko seexul xaddiim laaju nu mu tudd mu ne ko gaali saar lañ may wax seexul xaddiim ne ko Habaabakar Saar moo gën gaali sëriñ Mbay Saar bi muy lu ci seexul xaddiim ay atam mu ngi tolloon ci juróom-ñaar fukki at yu teg kon moom bi muy ñëw ci yoon wi magum jëmm la mu nekk ci kër gi ak sëriñ Touba seexul xaddiim ba bi sëriñ Touba seexul xaddiim di dem ci géej gi ci atu 1895 ci ñim dénkoon maam Ceerno Ibrahima Faati ci la bokk waaye dane ko ci sa dëkkub kumba nga toog fa tey ziyaare si boroom daaru kon bi seexul xaddim demee ci géej gi sëriñ Ababacar saar mii di sëriñ Mbay Sarr mi ngi woon ngumba dëkku maamam bi seexul xaddim ñibbisee itam ziyaare si na ko comme ni ko seex si defee waaye bi seexul xaddim ñibbisee njaareem nag la dikkaat njaareem ne duutul delluwaat fenn fu dul ci seexul xaddim njaareem googu la nekk di liggéeyal sëriñ Tuubaa seexul xaddim mu am bis kii di sëriñ Ababacar Sarr ñu gën yoroon ay ndënd di tëgg ak a way ba ñëw ci sëriñ tuubaa seexul xaddiim seexul xaddiim ne ko Hababacar Sarr lii ngay def loo ci jublu mu ne ko dama gis ne daal waa lan saar daa nañ ko defal yonent bi moo tax ma bëgg lu ko defal am na itam ñu wax ne dane ko danga war a bàkku te kañu te defoo ko moo tax ma di la ko defal seexul xaddiim ne ko loolu de dëgg la waaye def loo amul ndigal musiba mën na la caa toog demal toog ba am ndigal caaj yooyu ak ndënd paaka bu tudd saatu la ko lellee ñu fob der ya suul ci kër gu mag ñu fob tabala ya ay këll la woon seexul xaddim na leen mën ngeen koo jëfandikoo comme li ñu tudde ay ndab seexul xaddim teg ca keroog ca wax ja ne ko Ababacar Sarr demal di ma taxanal bu yowmal xiyaamee ma texeel la demal di ma taxanal bu yowmal xiyaamee ma texeel la kon loolu moo waral taxan mi waa kër sëriñ Mbay Sarr di def ajjuma ju jot ci njaareem te di ko yóbbu ci kër gu mag ci njaareem ku yi yoonu murit am muy màggal gi danañ taxanal lii di xalifa général bi fi nekk kon sababu taxan bi ca wax joojee lu tukkee sëriñ mbay saar wéy nag toog njaareem di doxe lii di ndigal ba bi ko seexul xaddiim woowee joxaat ko ndigal ci mu tëgg keroog bi ko seexul xaddiim di woo di ko jox ndigalul tëgg mi da ko woolu ba mu ñëw mu ne ko Habaabakar Saar demal foor am ndënd te ñëw ma wax la demal foor am ndënd te ñëw ma wax la bi ko sëriñ mbay saar defee ba ñëw seexul xaddiim dafa jël galañ ba na sëriñ mbay saar guuxal sa lexub ndeyjoor mu guux ko seexul xaddiim tëgg ca ñetti yoon ca guuxub leex booba mu ne ko def ko bu càmmooñ bi mu def ko seexul xaddiim defaat ko noona ne ko bisimila man nga di ko def boole kook nag jébbal ko gennu xasida goo xam ne ni moom la ñuy wax xadd xaa xani xan sali xasida googu la seexul xaddiim joxoon keroog sëriñ mbay saar ne ko dee ko booleek ndënd yi ba tax na saa bu waa kër sëriñ mbay saar dee tëgg pakk ak caaj bi xasida googu lañ koy booleel kii di sëriñ mbay saar wéy nag di tëgg ci ndigal lu ko seexu seexul xaddiim jox mu di ko amal ba ni fi seexul bàyyi ko ci atum 1927 sëriñ mbay saar wéy di màggal ndigal li ko seexul xaddiim joxoon ci atum 1935 la waa kër sëriñ mbay saar doon tëgg tombeek mu am ay tukk lóor yu doon ràbb ay séri rabal ca wet ga fecc ma ak coow la moo mujj dagg wëñ ya tukkuloor ya doon ràbbe loola itam mujj na jural sëriñ mbay saar lii di convocation ci yoon waaye sëriñ mbay saar nanguwul woon a ji yoon kii di Yili Menel Fall mi nekkoon chef de ci jamono jooju ci njaareem ñëw na seet si kii di sëriñ mbay saar ngir di ko xamal ne na dem wuy ji yoon ndax ki nga yaakaaroon di sëriñ tubaa seexul xaddiim tubaab bi jëlee na ko fi yóbbu ko indiwaat ko te mënuluñ ko dara wax jooju nag moo taxoon sëriñ mbay saar doog a dem nangoo wuy ji yoon keroog bi sëriñ mbay saar di wuy ji yoon mi ngi dëppoo woon ak àllarba 27 mars 1935 sëriñ mbay saar jóge këram jëm fi nga xam ne ni moom mooy commissariat bu njaareem booba nag mi ngi jàkkaarloo woon nag fi service de mine nekk jamono jii ci njaareem booba service de mine terrain la bu dara nekkul commissaire bu tudd Souraak moo nekkoon commissaire bu njaareem biir gajje ba fa nekkoon Fofana lañ ko daa bi sëriñ Mbay Saar ñëwee ba tolloog service de mine fi la commissaire bi di Souraak yar yooyu ñu yoroon doon ko yëkkati fas wi sëriñ Mbay Saar waroon yëkkati tànk ya ñi àndoon nag sëriñ mbay saar ne commissaire bi dóor na wala mu ngay dóor sëriñ bi gaa yi nag jàpp commissaire bii di suraak dóor ko bañ koy toggal lii di am xewar waxtu wi xeex bi am mu ngi tollook 10 ci suba barab bi mi ngi tolloog fi service de mine nekk jamono jii ci njaareem foofa la gaa yi làppe commissaire bi bañ koy toggalum xewar mu nekkaat beneen njombe bu dal ci kaw sëriñ mbay saar ñu jël dossier bi nag yóbbu ko ci diiwaanu ndakaaru di toppee sëriñ mbay saar daanaka ku rey doomu aadama keroog biñ koy àtte ci diiwaanu ndakaaru mi ngi dëppoo woon nag mardi 18 février 1936 ci ëttu àttekaay bi gën a rëy ndakaaru ñu koy wax cour de cassation keroog ca talaata ja biñ àttee sëriñ mbay saar ba pare lii moo tukkee ca àtte ba numéro dossier ba lii la woon 13 C version 17 affaire Ababacar Sarr cinq ans de prison kaso bi nekk Kaolack nga xam ne Kaolack lañ ko war a tëj ji cinq ans bisib keroog bi ñuy àtte Serigne mbay saar commissaire bi tudd Souraak teewul woon ca àtte ba tëni bi mu soloon keroog bi ko dongay Serigne mbay Sarr yi duma duma yu metti yooyu moom lañ indi woon comme jëmmi commissaire bi di Souraak ñu wane fa yére ya ngir seede duma yu metti yu ko waa kër Serigne Mbaye Sarr duma ci côté administration région de Diourbel moom commissaire bi fi newoon mooy commissaire Sourak Birgadieba Fofana lañ ko doon wooyee gouverneur général bi newoon Sénégal te nekkoon Ndar mi ngi tuddoon Prévier gouverneur bi nekkoon France mi ngi tuddoon Boisseau kon ñii ñoo tombe woon nag bi ñuy àtte Serigne mbay Sarr ñu nekk ci wàllu nguur gi ñii itam lañ boole woon ak sëriñ mbay saar doon leen àtte ku ñuy wax Modou Ndiaye dëkk Ndofène Abdoulaye fay dëkk Kankan Mbay Amar dëkk Jurbel Ousmane Mbaw dëkk Jurbel ñii lañ boole ak sëriñ mbay saar tëj juróomi ati kaso ñi ci des benn atu kaso lañ leen tëj keroog muy ku ñuy wax Malick Guèye dëkk Jurbel Alioune Tunkara dëkk Jurbel Abdoulaye fay dëkk Jurbel Omar wàdd dëkk Jurbel Daouda Ndaw dëkk Jurbel ak Issa Bey ñii moom benn atum yàllam kaso lañ leen tëj ci at nag booba sëriñ mbay saar mi ngi am cent quatre ans lii ma la wax nii nag soo demee archive nationale fekk ko fa ñu yóbbu sëriñ mbay saar lii di Kaolack tëj ko fa waaye lii di cinq yi mujjul mat ndax dañ ko am nestie mu mujj génn sëriñ mbay saar ci kaso bi kii di sëriñ mbay saar ne du génn ci kaso bi ndax kaso bi dafa neex ñaareel bi mu ne seexul xaddiim néewoon na leen da ngeen am ay taax bala ngeen a faatu te xam na ne kaso bi ay taax la kon la leen seexul xaddiim waxoon dikk na sëriñ Basiiru Mbàkke moom seexul xaddiim lañ ko mujj wax moo joxe ndigal sëriñ Mbay Saar mu doog ñibbisi waat njaareem kon mu ngi génn ci kaso bi ci mois de août caatu 1936 mu des Kaolack bi yalwaan ak dongo yiñ leen boole ndawoon dencandoo ba samedi fukki fan ci mois de octobre ci atum 1936 muy doog a ñëwaat njaareem kii di sëriñ mbay saar mook sëriñ maalik njaay la seexul xaddim ëppoon lum daa yónni ci mag ñi wala ci frais yi ci diwaanu njaareem li tax nag waa kër sëriñ mbay saar duñu bay wala amuñu dëkk laa leen bëgg a wax mu am bis sëriñ mbay saar seexul xaddim yónni ko di ko wooloo lu tolloog juróomi seex ci njaareem waaye ku mu dem fekk la nga dem tool sëriñ mbay saar ñëwaat ci seexul xaddim ne ko yàlla xanaa yëgoo ne bàq bi dafa tooy seexul xaddim ne ko yow lu sëriñ bay saar ne ko damaa xam ne lu ma bëgg ci yow am ko seexul xaddiim ne ko bu ko ñépp xamee woon noonu de ma defal leen lu gën mbay loolu moo waral njabootug sëriñ mbay saar amuñu ay tool duñu dem tool te sëriñ mbay saar sañtul dëkk xam ngeen ne kii di sëriñ mbay saar wala dégg ngeen kii di sëriñ mbay saar daana def fu weeru safar wi teroo bay jeex mu séentulu lii di weeru gàmm wi suñu ne ko gis nañ weer wi mu ne yaa ko gis ñu ne waaw ba muy ñett yoon mu ne kon mucc na ci mii at xanaa déwénati ndax seexul xaddim moo ne ko woon yow ci weeru safar ngay làqu wuuteeg lool nag ni ko nit ñi di waxee naan sëriñ mbay saar dadaa def weeru tamxarit wu ne mu dem fanaan ci bàmmeel loolu moom wax ju siiw la waaye amul ndax mag ñu bari ñu toppoon seexul xaddiim laata ñuy génn àdduna xam nañ seen bis bi ñu war a génn àdduna ndax seexul xaddiim waxoon na leen ko noonu itim ni la ko defe ci kii di sëriñ mbay saar moo tax ci weeru safar woowu ko seexul xaddiim waxoon ci la génn àdduna sëriñ gaali saar teñ gën koo xam ci sëriñ mbay saar te seexul xaddim daa ko wooye Aba Bakar Sarr mi génn àdduna ci atum 1951 ci njaareem dëppook talaata ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru safar ci atum 1371 ci gàddaay dëppook mardi 27 novembre 1951 ci dëkk bi nga xam ne ni fala ko seexul xaddim dëloon muy njaareem ci xilaaf ak cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke ñu indi ko ci armeel yu mag yi denc ko ci fi ñu tudde guy texe biñ yëgalee cheikh mouhamadul faadal mbàkke ne ko Ababacar Sarr génn na àdduna sëriñ abdourahman mbàkke bu maam ni ibrahima faati mbàkke la yabaloon mu jullee sëriñ mbay saar ñu dog ko jébbal boromam ci Touba. kii di sëriñ mbay saar dund na téeméeri at ak fanweer ak juróom benn doog a làqu ndax mi ngi gane àdduna ci atum 1815 mi ngi génn àdduna ci atum 1951 xam ngeen ni néew na lool ñu gis ku dund lu ëpp téeméeri at ci siècle bii wala siècle bi tombeek sëriñ mbay saar waaye moom téeméeri atam fanweer ak juróom benn moo ci toppoon sëriñ mbay saar ay xalifaam nii la tëdde sëriñ ismaila saar moo ko wuutu ci atu 1951 ba atu 1964 ñaareelu xalifaam mooy sëriñ moodu abdullahi saar moo ko wuutu ci atu 1964 ba ñetteelu xalifa sëriñ mbay saar mooy sëriñ seex caane saar moo ko wuutu ci atum 1970 ba atum 1986 ñeenteelu xalifa sëriñ mbay saar mooy sëriñ abdu yaasin saar moo ko wuutu ci atum 1986 ba atum 1994 juróomeelu xalifa sëriñ Mbay Saar mooy sëriñ Abdou Kassane Saar moo ko wuutu ci atum 1994 ba ci atum 2002 2002 nag la doomi sëriñ Mbay Saar yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf ñu dese fi rek benn doomu sëriñ Mbay Saar bu jigéen ñu koy wooye soxna Mbarka Saar kon soxna Mbarka Sarr mi di doomu sëriñ Ababacar Sarr di sëriñ Mbay saar ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax mu sut waajuram wa aw fan te taxawu ñi nga xam ne nii ay doomam lañ ak ay sëtam sëti sëriñ mbay saar yi nag tàmbalee wuutu kii di sëriñ mbay saar sët bi ko njëkk a wuutu nag mooy sëriñ mbay ummi saar moo fi toog nag 2002 ba nëga ni ñu koy ñaanal bu baax a baax moom itam mu taxawu juróom yi mu wuutu ak maamam ji nga xam ne ni moom lañ koy xoole lii di màggalug sëriñ Mbay Saar daa nañ ko fàttaliku ci bis bi mu làqoo muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru safar def nañ ko ay ati at di ko fàttaliku moom sëriñ mbay saar waaye ci xilaaf ak cheikh mohamadul faadal mbàkke dajale woon na ñenn ci seex yi ngir wax leen buñ mënee bàyyi bis yi ñuy fàttaliku seen waajur ya ndax gënalu ko woon ca wax joojee la waa kër sëriñ mbay saar bàyyi màggal giñ doon defalal sëriñ mbay saar kon mën nañu wax ne ci année 60 ba ci 2014 bii amul bis bu ñuy fàttaliku sëriñ mbay saar ndax ndigalul cheikh mohamadul faadal loola waaye nag ci njabootug sëriñ mbay saar mi am na ñuñ ciy fàttaliku ci njaboot gi di doom yi waaye bisub sëriñ mbay saar moom jamonoy cheikh dul faadal lañ ko tere woon ñu ngi ñaan ci dara jay hababakar mi seexul xaddim duppe woon sëriñ mbay saar ak dara jëy guy texe giñ ko denc ci armeer yi yàlla nañu ko yàlla fayal te may ñu fanam wa amiin may may ñu fanam